asalaamaaleykum maa ngi tudd docteur Amadou Dieng di jiite association Santé. waaw association Nguith Santé association bu dajale képp kuy doomu Nguith te yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram moom lañu ñu dajale pour nga xam ne dinañ mën a di boole suñu xam-xam boole suñu xalaat pour mën a jariñ waa Nguith ci fànn bu nekk ci wàllu wér-gu-yaram. waaw bii moom mooy première édition bi dañ daan def uh, at bu nekk bu gàmmu ngij bu mag bi bu amee am benn équipe boo xam ne dafay ñëw assurer couverture médical bi ren nag uh, ñu waajal ko bu baax fekk ni yàlla may ñu ñu am moyen yu xaw a doy ñu mën a assister bu ngéej bi nga xam ne mooy bu murid yi mooy première édition bi di ñaan yàlla at bu nekk ñu mën koy fekkee euh, waaw garab yi ni muy jugee bëri na dañuy ñun waa association bi dañuy cotiser ak bu nekk dafa am benn somme bu ñuy cotiser selon niveau bi nga nekk suñu mbokk yi saa yu activité amee dañu leen di yónnee ay lettres soit ci famille yi wala ci bonne volonté yi et que bi nguur gi mooy ñi nga xam ne ñoo ñu jiital aussi dañ leen di yónnee ay lettres et lu ci bëri dañuy tontu positivement. waaw déjà dañuy sant yàlla bu baax ci dalal bi ñu dalal parce que ñoom lañ bokk mais dalal nañu dalal boo xam ne ni euh, sedd na suñu xol euh, ñu aussi di leen di leen sant tamit ci wuyu ci parce que nga woote ay nit ñi wuyu si la tamit dafa am solo donc ñu di leen di sant bu baax a baax di leen di soññ ci seen wér-gu-yaram comme ni ñuy faral di ko defee di ñaan yàlla ëllëg yeneen doomu ngi tamit bàyyee ko ci dëkk bi ñëw nekk membre association Nguith Santé donc ñu gën a sonj xale yu ndaw yi nekk ci jàng mi ñu gën a góorgóorlu pour que suñu association bi gën a yokk ci ay nit ak euh, daraja yi tamit gën a yokk waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox. man la Ahmadou Koundoul ñu gën ma xam si Amath Ndour maay secrétaire général de Nguith Santé. Euh, waaw tey liggéey bu ñu fi liggéey muy commencé depuis démb suñu arrivé bi ba tey jii nii si 16 heures parce que dem ba ñëwee joxe nañ suñuy directif à savoir comment travailler aujourd'hui organisation aussi ñu ngi leen gërëm parce que ñoom tamit ba nga ko joxee jàpp nañ si neuf heures fekk nañ ñu defal mise en place bi aussi consulté nañ l'organisation était bonne voilà amul woon benn problème donc bilan bu ñu mën a def tey jii nii mooy on a consulté plus euh, cent 150 personnes à peu près 150 personnes ont été considérées dans la zone du Gamou des Mourites. Donc euh, notre principal problème était, bon, comme d'habitude, un manque de médicaments Nous avons ñu lancé message par rapport à euh, waa par rapport à nos euh, partenaires nous ñuy des fois suñuy lettre bu ñëwee ñu des see def seen la carte par rapport aux médicaments parce que bon consultation am solo mais doon le médicament plus conseil moins mooy solo voilà. waaw niñ gën a seetlu nag euh, jamono ji nii mooy bon am na ay cas euh, tension hypertension mais tamit lu ma gën a seetlu mooy euh, gu feebaru biir yi li si mel ni borom ulcère yi ñuy woowee borom ulcère wala borom biiru tañ yi yooyu ñoo fi gënoon bëri mais alhamdulilah indiwaane indaale woon na ay spécialiste voilà de garab yi aussi présenté woon nañ par rapport ak ces maladies. donc prise en charge amoon benn problème. waaw am na am na benn cas bon duñu wax sax cas la par rapport ak constatation parce que bon comme ni nga xamee euh, bu ne ngic dafa xewla dañ naan fi ay médecins yi fi ñëw donc am na benn kaa bu jóge woon à Warxoox te cas bi xawoon ñoo dépassé ñu transféré ko à l'hôpital à kii euh, nu ñu koy te à l'hôpital Magatte Lô pour ñu meilleure prise en charge. waa message bi may lancé mooy message bu président wax rek mooy ngay wax partenaire ñu siy jàpp di wax si doomu dëkk bi ñu siy jàpp di ñaax aussi xale yi yi jàng toll si jàng ñu jàng ba déwén ñu mën a def li ñuy woowee médecine pour association gën a mën a dox parce que comme ni nga ko gisee moi comme président association mooy tax a jóg mais te am nañ ay yeneen ambition par rapport ak suñu carrière donc bu si ne ñeneen mënu ñëw jàpp rek dañuy yàgg dañuy ragal mu sooxe te ñaanu yàlla mu sooxe li ñu mën a lancé mooy xale yi jéem a continuer jàng bi def seen kent laay tànk eh, kattan def série S ñëw def seen bag yàlla may leen bag bu baax ñëw faculté de médecine jóg pour jël la ilaha illallah kon ci sant yàlla sant yonent bi sant Sëñ Tuubaa sans te mosu koo manqué musta feebar at yi jeex la ma woo nga keroog nga woo ma fii na ma sa jox na la liggéey bi bés nekk tey yaa yor liggéey bi yàlla def na boobu ba léegi it ñu ci gën sant suñu borom bi na wax sax keroog sama rakk bu ñuy wax Maama ko yéen a ngeen def ségrégation ségrégation ndax moom maanaam moom bi ñu ko doon def maanaam li mu daan am ci tuuti la daan am ci ay ressources waaye bi yoon moom damaa sas xale yi ku ci nekk ma am lu ma la sas nga bay saw sas ñu ñëw ba yàlla baax na def na tubaarkalla gàmm nañu ci jàmm te amul benn problème wax dëgg yàlla dara manqué wul ceeb manqué wul diw manqué wul yàpp manqué wul kon nag ñu koy sant sant yàlla sant sant bu baax kon nag juróom benn juróom benn ñett ñu ñaan yàlla mu yokkuwaat te ñu ñëpp ñu teewee ko fekkee ko ci bàkki borom tubaa gannaaw loolu sëñ Fallou ñu ngi lay gërëm di la sant wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant man mi dëkk Tuubaa xam naa say mbir xam naa ni wax dëgg yàlla sëñ Sidi Muxtaar mi fi nekkoon ku la bëggoon la ku la gërëmoon la ñaanal na la gërëmal na la defal na loo xam ne ñu bari defalu leen ko ci yoonu sëñ tuwaay keroog ba nga fa ñëwee la dindi keroog bu ñu demee fekk ko kër ngàndal la dindi am bubu jox la ko nga barke loo ko keroog ba nga nekk nit ñi bari nañ ci mënu mënu ñoo siyaare ndax dañoo xaw bari mënoon la daan defal loo xam ne léegi ku la xool ajum faju waaw keroog defal na la ko terewul sax mujj gi ñooñu xawoon na toog xam xawoon na jafe ñooñu mujj nañu ko gis kon nak wax deug yalla gayam ah ñu ngi ñaan ci kat nak borom Tuubaa de ak mam jaar mo ma joge Poroxaan ak ci barke sëñ Muntaxa mi nek seigne sëñ nga yag fi lool and ak wër li nga def nga gën ko man yalla may la ak wër may la ak tal njabot gi barkel nga agale sey yene ci yoon yoonu yoonu Ngaayeen yoonu yoonu sëñ ci ci Jolof nga agale ko waaw ma ngi ko ñaan ci borom dool ñaan comme nim ko waxe ma ngi ko ñaan ci sun borom bi ñaan ci barke borom Tuubaa barke maam jaar maam jaarullah kon nak yéen mbooloo mi yéen ñëpp ñu ngi leen sant waa Ngaye ni ñu ngi leen sant gërëm nañu leen amuñu seen pay wax dëgg yàlla tey xatoon na lool wax dëgg yàlla parce que amoon ngeen te ñeenti xew amoon ngeen ngaraaf amoon ngeen lingeer am feneen ngeen bàyyi ko fi ngeen bàyyi fi sëñ bi dem liggéey loolu bari ñëwaat ñun sëñ bi sax xamal nañu suba na moom sax ngi la gën a fonk wax dëgg yàlla parce que moom mënu fee jóge moom lu xew lu lu mu bari bari rek moom àla kul àll fekkee ngi xew la na ngi lay jël en priorité te def na ko tey kon nag gay yàlla nga fi yàgg yàlla ngi fi yàgg ak njaboot gi yàlla barkeel yàlla ñu yàlla ay xéewal bañ mën a fàcc suñuy soxla ba nga xam ne suñu soxla duñ ko dis kenn buñ ko disee sëñ bi yàlla defal ñu ko ñu mën a fàcc suñuy soxla waaw njaboot gi barkeel yàlla njaboot gi wér yàlla barkeel nawet bi defal ñu jàmm defal ñu xéewal gannaaw ba loolu wooyee aussi maa ngi ngërëm waa ñoom it wax dëgg yàlla am nañ solidarité wax dëgg yàlla lu xew lu nekk ñu bàyyi seen lépp ñëw teew fekkee waxtaan yi kon tim wax dëgg yàlla ngiñ nag moom comme li ma naan wax rek ngiñ moom comme ni ko démb ci ki ndey faal bi demb ngiñ moom benn bopp la yàlla ma yàlla dimbale leen daal ba benn bopp lañu wax dëgg yàlla te déggonuñu seen biir am nañ solidarité seen biir ku ci xew la ku nekk muy xewu bànneex muy xewu naqar ñi bokk kook yow waaw wax dëgg yàlla yàlla leen yàlla teg ci siraatal mustaqim njaboot gi yàlla nañ barkeel xale yi yàlla nañ màgg te yàlla leen yàlla musal seytaan ak cat musal na lépp lu di gàllankoor lépp lu ñu jaam tamit yàlla suñu borom bi fanqal ci barke borom Tuubaa bi jaay xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñëpp rek di sant mbooloo mi comme ni ma ko waxee rek comme waxtaan wi daa xaw a daa xaw a guddi lu rek mbàkkee lu rek euh, gayam laa daan bar laa daan barkeloo tey jégalu nag bu fekkee am naa ci loo xam ne lu dëng ni maa ngi koy jégalu bu baax ñaan yàlla def leen jàmm ak xéwal jaay xaadimu rasulullah jërëjëf sëñ Tuubaa ji sax yàlla na yàgg ci suba ngeen ànd xëy ànd fee ñëw fii def fi kaamil àndaat ziar bi nii wax dëgg yàlla ñëpp seen xol sedd na yalla nag sama borom yàggal ngeen yàgg ñu jiite ñu yàgg nekk seen gannaaw ngeen di ñu digal dañuy tere li ngeen ñu digal ñu nekk ca li ngeen tere yàlla dogal sax kenn duñu ci gis loolu ñu ko ñaan ci barkeb euh, Cheikhul Khadim xanaa rek di bala may ñëw ci jëmmi wax ji ngeen ngeen xamee ko noonu rek ci loolu lañ fa yéene nekk fii ñu ngi koy tal waaw ni ko ni woon fii maa ngi koy tal liggéey sëñ Tuubaa rek kon nag ñu timit ci loolu lañu ñu fas sax ñi ko tey suba nag li sëñ bi waxoon rek ki fi teewal waa àndoo ci yàlla na ko am nañ diine sëñ bi li ñu bëgg mooy ngeen ñaan lu ñu am xaalis tey wax na dëgg ndax jamono jikkat na ma yàlla baal lu fi jag xaalis moo ko jagal waaw loo lu waaye bëgg a sëmb yi te amoo xaalis yi sotti kon nag sëñ bi ñi ngi ñaan nga yow ak sëñ daam gaaj ngeen ñaanal ñu koppar yu bëri ak wér waaw li sëñ bi di wax naan tawi la naa xumra naa saxi la naa badanan wa hëb la naa rushda wa tawfiq yàlla loolu ñaanal ñu ko sàmm def su ñun te tamit moo wax sëñ li sëñ maam waxoon non boo ñaan lu baax da nga ciy da nga naan li may ñaan bu dee su ma ko amee naa def ni ma ko war a defee yàlla naa ko am su ma ko naru yàlla na seey nu xorom kon ñun tam li ñuy ñaan bu dee dëgg la su ñun bu dee fekkee bu ñu ko amee def ko ni ñu ko bëggee na ñu dal bu dee nag naruñ ko yàlla na seey nu xorom rek kon naa sëñ bi dëgg loolu daal mooy message bi ñi ngi sàkku ci daraje Cheikhul Khadim ngeen ñaanal ñu ñu gën di ko man rek gën di ko man at mu jot alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bokki jullit yi soppi yi sëriñ bi maa ngi doole yeesal sama ziar di ñaan yàlla yal nañ la fi yàgg fekk yal nañ fi yàgg teewee lu mel nii guddi gi ñuy waajal li ci suñ boroom def ci ay ngëneel ak xéewal yal na ko yàlla sotti ci njaboot gi yëpp ñu jëriñoo ko jaay si diw jot mbokk yi teew si yëpp góor ak jigéen comme ni ko sëñ Ali waxee léegi mag ak ndaw bépp aajo buñ fi indi ci nu yàlla barke guddi gi tax ñi di fi daje yal na ko yàlla saafara yàlla defal ñu wér ak wér li mucc ak mucc li yal na yàlla yokk xéewal yi yal na yàlla yokk xéewal yi yal na yàlla yokk xéewal yi yal na lépp ànd ak wér ak ngëm yàlla lépp luñ ci xam te di ko jëfee yal na neex yàlla mbokk yi daal sant tey gërëm di dalal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yal nañ ko fi yàgg daje yal nañ ko fi yàgg daje ci barke Maolana barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu gannaaw ban sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm kilifa yi fi teew yëpp di si jiital suma sëriñ sëriñ Ahmad Dame Gaaj ak sëñ Fallou Gueye di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal seen fan te yàggal seen taxawaay wax ji nag du bari baatab sant ak ngërëm rek la ba ñu yàlla dimbalee suturaal ñu ñu fekkee ko daaw fekkee ko ren ak sant yàlla rek la maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñépp ndax jotaay tey jii boo xoolee si département de Linguère bëri na fi kon buñ ma séddalee na ma doomu ngiñ nga ngiñ nga dëkk ñu bàyyi la foofa ma waroon dem ngaraaf waroon dem fenn nag fenn ñu séddee ma fii dama si sant yàlla samay biir mbokk alhamdulilah. waaye sëriñ bi li nga xam ne dañ la koy gërëmee te di la ko ñaanal yàlla rek mooy negeen daaw dañoo nekkoon si ay jongante yàlla suturaal ñu dimbali ñu ba njiit réew mi taxawaat si bopp réew mi ba mu am confiance gu toll ni jëlaat ministre de l'intérieur teg ko si post bi nga xam ne moom moo fa nekkaloon am confiance bu toll noonu joxaat ko ko ba si looloo jógee ministre bi amaat confiance bu toll noonu delloo ñu ñun tamit léegi na demaat leen si mbooy mbooy ga ngeen def seen liggéey nam leen waree kon li ñuy def mooy di sàkku ci yow ñaan yow ak Serigne Dame yéen ñi nga xam ne yéen fi nekkal Jolof di exemplaire ci biir Jolof ñu ngi sàkku s yéen ñaan ngeen ñaan ministre de l'intérieur yan bi nga xam ne ministre de l'intérieur yan na ko yan mu doon yan bu oyof tool yàlla dimbale ko si sutural ko si ba lépp lu mu bëgg si Sénégal ak président Macky sàll bëgg ko yàlla dimbale ko mais mu am ko man nag dama di ndaw nekk ak moom di liggéey ak moom di sàkku seen ñaan ngeen ñaanal ñu yoon wii ñu nekk yàlla dimbali ñu ñu bañ see am benn gàkk-gàkk loolu moo doonoon samay kàddu tey di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla nañ fi teewu déwén jër ngeen jëf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 di leen ziar di leen ñaanal yàlla aussi comme ni ko Matar Gueye waxee léegi ak ñi ma jiitu yàlla yàlla saxal leen suñu kanam yàlla yara taxawal tax dëgëral seen taxawaay yéene gi ngeen am ci njaboot gi yàlla bu leen ci dara ump yàlla na ngeen ci fekkee lépp bu loolu weesee it wax ji mën naa bañ a gudd ndax euh, Matar Gueye lépp daf ñoo yàlla daf ñu ko boole bu yemoon ci moom rek yóbbaale nañu et je pense aussi que le président Baba bu waxone rek jobale nañu ñun ñep mais dafa fekk ne li ab cieur la bo xamanteni ne ñun dañ koy sago fuñ mënti nek ndax fii mënuñu am lu ko ëpp ndax wutuñ lu ko ëpp kon buñ fi amé cieur bu ni mel dañ ci sante yalla di ci profito euh di santat ñep di len gëremat ci seen maturité ak taxaway bi nga xamanteni ne nañ ko ci if njabot gi yépp ci li nga xamante ne moo nekkoon suñu ginnaaw booba léegi nag yàlla dogal na ne on n'a pas eu l'occasion ñu sant leen gërëm leen kon tribune bii tey dinaa ci profito wax ne sant nañ leen gërëm nañ leen ñëpp ci uuf bu rafet bi nga xamante ne bokk ngeen ko uuf njaboot gi loolu nag yaakaar naa ne ñëpp ko bëgg waaye du ñëpp ko am kon ñun ñi nga xamante ne suñu borom jagleel nañu ko nañu xam ne du ma ne am nañ lu kenn amut waaye am nañ lu ñu bëri amut loolu mu rafet mel nii dañ koy sante mag ñi donc dañuy delluwaat rek di leen santaat di leen gërëm di leen ñaanal yàlla euh, sëriñ bi am na ci loo xamante ne mënuñoo cee ñàkk ba ñu yegg ndax ay taalibe lañu te lépp luñ munta amit sàkkuk taalibe moo ñu ko gënal moo tax ñii nga xamante ne ñoom laa àndal ci liggéey bi di waa mouvement Jolof Jub Jokko li nga xamante ne moom leen yàlla seddee am na luñ ci téex ne dinañ la ko ziyaare dinaa la jotali enveloppe boobu bu loolu weesee it ñi nga xamante ne ñooy daayira bi ñu sasoo tey ji l'organisation duy gàmmu am na loo xamante ni it ñoom fàggu nañ ko fas yéen leen ko jàppale ci bis bi loolu mooy ñaari enveloppe yi donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu waat bi leen yoon di leen wax ne yaakaar gan amoon ci yéen tiitaroo bañ leen daan tiitaroo tey jii lañ ci gën a firndeel suñu bopp li ci kanam suñu borom moo ko moom yàlla nañu ko yàlla rafetalal ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla yàlla dëgëral taxawaay yàlla yàlla saxal leen suñu kanam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ba mu téyee xalimbaam di wax ak jullit yi waxut pour boppam dafa bindab téere tuddee ko daal tasawudu sixaar waxut tasawudu tuuba waxut tasawudu mbàkke mais tasawudu sixaar la wax ca biit wax ja mu ne xaakum nasiati lakum fa tarbaxu dunyan wa uxran maa qawmin aflahu kooku waxul ne tijaan rek lay wax ak waxul ne murid rek ndax yàlla mu bind doomu aadama te xam luy jëriñ te wax ko te def ko moo ne qad aflahal muminuuna la siinuhum fi salaatihim qaasiuuna wala siinuhum ani laxwi muriduuna ba ay jay jeex teraang bu baax ji yàlla may sun sun sun baay yaag sun maam yaag sun bajjaan yaag sun yumpaañ ya laxasaayu ci góor gu baax gu sell ji nga xam ne yàllaa ko tànn jëriñ mu jëriñ mi wax jii mu wax nan ko déglee xel te bañ ko dégloo xol nan ko dégloo bëti zaahir bëti baati ya ñu baxee ko yàlla yëmul foofu na xam na ne luy dox càq yu ndaw yi ñooy yindi càq yu mag yi ndaw yi ñooy nekk mag moom réew mi moo tax ndaw yi lu mu leen digal fastaxilu bilxifsi wa tilaawa wajtanibu majalisi saqaawa ñaari bayti yii wala benn bayt bii doy na ndigalal njëriñ doy na ndigalal tere képp ku bëgg a jëriñu soo ko dégloo da nga jëriñu te jariñu rekk kat moo yëkkati jullit bi mu toppee kon ñi ngi sant sunu wajur ya fan jàpp baax na fan jàpp dër na fan jàpp jariñ na <coughs> waaye sunu sëriñ sii nga xam ñoo jàngal te naxuñu ñu réerulu ñu jubal ñu baaxal ñu yàlla Sëñ Fallou yaag say rak ak mboolem waa Jolof yàlla na jàmm sax ci réew sax nan bu baax wax day bu amee weddi rek bama ba ma gàmmoo ci Italie laa na ngiij amul murit ak ñëpp ay jullit lañ ay bokk lañ ay citoyen ndax ma maam ma maam maam ama jamagay coono ba mu sante alaaji moo roq aw yoon mu liggéey yoon wa wooxul waa balel wooxul waa kaaji waa dëkk bi la woo alhamdulilah yàlla xiiwe nunu ko yàlla baaxal ko yàlla suttal ko te kat booba ba léegi loolu moo nekk ci gone yi ñu ko ca mag ña kon nag ñu ngi ñaan yàlla mi baaxal yàlla yàlla saxal ci mbaax يالنا يالا ناتال لين يالنا يالا جيين لين باي نيس نك لم نيان يالا يا رب بالهادي وصاب الهادي فلتكفي سابي كل شيء خادي رب اللميني اتى باللميني كل مطالبي بكل ايني اسال بالفلق رب الناس ما فوق مدلبي بسر الناس سبحان ربك رب العزه عما يصفون yàlla na fi dajee déwén wa salaamun ala mursalina walhamdulilahi rabbil Roqi Gaaj sëriñ Daam cheikh cheikh al islam alaaji Ibrahima Niass maa ngi ubbi ko néeru bi ci yow martaba yooyu ma la ràng yàlla nañ la ko roofal ci barkeb jotaay bi bokk yi جليني طالبي سما ويرم نوخ نوخي ووت تي لي ني ماي واخ اك لي ني ماي داف لي سما ويرم نوخ نوخي موي ني ما ديف ني دي ньо ني سما ويرم نوخ نوخي ني تي ньоم واخ دغ يالام شيخ مار جاما لي ما جور تاخو سيغ شيخ lim ma yar taxut sëñ maama li ma ko wut fii ma toog waat naa ko ci yàlla billahi la si laa ilaha illa huwa xaadim barke seexal xaadim sëñ mor maaxi ngi ni toog wanewuma dama leen di wan alal ji jëmm yi daraja ji lépp fi lañ koy bàyyi ana ñan ko doon jox ana ña ko doon joxe ñëpp fa taxoon ñu joxe ko rek am solo yàlla na sa borom dimbale foofu luñ la jox te yàlla taxut boo léegi da ngeen ko lijjanti foo ko def te yàlla taxut boo léegi da ko lijjanti fa suma xëy na ñu dama jox alal mu ko def fa la yàlla taxut fa suma yey nii di leen laaj alal jol yàlla taxut li ma sa defal yéen ñëpp bu ngeen dajoo yëkkati milliards yi kenn mënu ko ci ni ma ñàkkee solo ni doomu aadama mel ni sëñ Mor Mbaaxe teddee laata laata laata mu tobbi sëñ Touba juróom-ñaar fukk juróom-benn fukk ak juróom-ñaar bàyyi na ko ci ñoo xam ne ñi dañ ko ko weexalee mu jënd ko xanaa booba ca jamono booba xanaa kook am na wëlër xaali Moran Sëli xaali Mamadou Gaye xaali ma jaxate kale ñetti xaali yee fi nekkoon bàyyam na ko ñukk xam ne lii wéy ana xaali ana xaali ana ko ñeme ñu nit nga fab tey ana ko ñeme jëndi nit ngeen dikk di ay di nit ay nit ni yow dikkan damaa jaayanteeg yow ngir yoñña ba ne la taal ba ngoog bo amee jom ba nga am ngor doona nga mu ñet ci yow kon bay gay su ma ne bàyyi mu dagg alxuraan lim nu jàngal loolu lañ war di jëm wala tan ki woo maanaaka abaakum du caagee nag sëñ maam yi bokk sëñ ma déedéet ku tolloog sa baay ay rek sa baaya mag ñooña dama xam keroog bañ demee ba sës ci bay njuga bay maamay bind ku ñuy dem magam taal mu ne bindal njuga waga wee ñaaw waaye machine bu garanti la yor Nyonya, fabul ñoon jëmma tanef lañ doon fab seen bay yooya toppoon sëñ moor mbaaxe amoon i bokk juddu amoon daraja yeno fi da ngay sét sa bop bop bi nga yeno ko fi ci sa digi juddu bi jaar fe ngay ñu jox la xam ni ngay dox ba jaar mi ko seigne touba ñoña lañ doonon lañ joxé bu len tegg bët allergy barké barke seexal li ngeen doon rek la gis liñ doon amu dara ci armel rek lay mujj comme man di noon ba ci xayru xalqu laay gas bam xóot suul jëmma ja moom tabaaraka wa taala sun jëmme ba pay payam gi da cee xëjut moo tax mu moo tax mu indi nu adduna buñ demee ca moom néeg bu ne ab étage ba mat juróomi étage ci nek jëmm ju ne noonu lay toll su keroogee ay yàlla keroogee suñ ne ca nga taxaw nañ bokk ci góor yàlla yi seedi góor yàlla yi xoolal fii ma toog fu ma wax ñu bëri ngi diri su boobaa nag juróomi étage yi fa la boobay soqee ko wuti kaw ñaari micro ngi nii juróom-ñaar fukki micro ak juróom-ñaar képp koo xam ne kii yor na nopp wala mu ñori bët dana seen séen da nga wax muy dégg ay nañ bàyyi suñu xel mi foofu fàq yar yóbbu bay fi yar jart xëy jarta gont alal ju bëri ju léegul fàq yar yóbbu rek bay fi yar nañ fexé ba sun dund gi bu ne lu dalam ba ci suuf bala ko saxal lek nañ ko jox yalla sun alal ji ba nañ nañ ko jox yalla ma ngi denk sama bop dañ ma fe tek ngir ñuma jubunti ngir ma jubal jami billahi la si laa ilaaha illa huwa su mo mënoon sama xol bi billahi dama koy maas ñep ñep gën ma man ba top ci xam torox waxtu wala ñu bax topé nopp ngaa torox waxtu wu lay ay risa toppee nopp ngaa ñàkk waxtu wu lay ni toppee nopp ngaa nekk dof Cheikh Rafal mën a dof bi yéefar bi wala kaana bi ah dof bu ay ni topp dana mu ñëw mu ñëw ndofam yéefar ay jullit di ñaarloo dana mu ñëw mu ñëw yéefaram wala kaana waaye topp dana mu ñëw wala kaanam te kenn kuy toppe ku ne boo nekkut yett yi doo am dara nit day dof doo nekk nit. lépp looy topp boo ci dofu doo ci jëriñoo doo ci jëriñ waaye dof yëpp li see ba dof ci yàlla nit ci nit ñi nit ci nit ci yàlla yàlla nekk nit ci nit ñi waaye nekk dof ci nit ñi waaye yàlla ñu nekk nit ci yàlla te bu nekkee nit yàlla nekk nit ku nite kon bàyyi seex maa ngi sant sant dina sant liima am sëñ Mor Mbaaxe amu ko seigne Mor Jàmm amuko seigne Cheikh amuko seigne mam amuko seigne Mor Mbaaxe mom kotta ken ker bam joxe bop seigne Bamba su moy kerab du gay ker Baba gay ken topp ko duk du déedéet da ci ciir mam Mor mbacho moo ne gëmadi wu ma Bamba weddi wu ma ko yàllaa ko yebal mu dikkati tànn loxoom yem ci seigne Mor Mbaaxam nako ko cës ñoo geñu Mamadou gay ga te gënu tëb di dàqumaa jàng istafaytu alaji dam da fi di jóg hala naas bi ti wa bi kalami faqu suma aateetu ko faqu suma aateetu ko nañ jàpp ci li nu sa morom jox suñ cër bii bu nu ko daraja jaral bu nu ko dërëm jaral bu nu ko aw naqar jaral bu nu ko bu nu ko tabax jaral yàlla mi samma tëlum sàmm mu ñoŋ yàlla yàlla sàmm képp koo xam ne ki teng fi teng fi jotaay bii gàcce ak àdduna yàlla nga ci mucc soo ci muccee ci gàcce ak àdduna yàlla nga mucc ci gàcce ak àllaaxira suñ muccee ci gàcce ak àllaaxira yàlla nga mucc ci gàcce ak ëllëg defe naa juróom fukki at ci àdduna du mooy benn bésu barsàq kenn dundu fi ñetti fan téeméeri at ak juróom fukk ñeent fukki guddi senn saala ci bàmmeel ñu ne dañ koy defal ñeent fukki guddi aha yëf yi yombut de yëf yi dañ koy yombal yombut de yàlla tabaaraka wa taala aljanna alquran ngërëm kenn du ko am ci koob laal ŋaax ni mbaam nangoo sëf ni mbaam nangoo sëf ni mbaam sëf waaye tey ni wut teen bay wadd ni ñëpp yàlla may dimbali te comme dimbali nga dem yàlla na yàlla dimbali képp ko xam ne ki andi woon nga fi aaj yàlla na ko yàlla faj saahiran wa baatinan eh, lii ma doon yàlla yàlla yàlla bu leen ci mucc may seede nag na bàyyi seex Bamba taxu mën a jóg ku doon wër ngërëmal yàlla rek la lii damaa dab lépp nag sëñ Tuubaa nee na lépp loo daj bu la yàqale yoon dala taxoon a jóg gis nga mbubb mii am naa man yenti weer barki Seexal Xaadim rus naa ko sol sax taxuñu ne na mooy nangam ma dem na yàgg maa nag jëmmi na nag ki ba ko solo nag kasoroj bi laa ko sol tey ci ñaar naa ko solo sëñ Mor Mbaaxi ba ku too xam ne ku sëñ Mor Mbaaxi maam Cheikh Anta def na Cheikh Bamba Mbàkke da ngaa yaakaar waaye xeme mu woo da waaye xeme mu woo nag sama néeg yu rafet yi sama mbubuy rafet yi sama ñam mu neex damaa bëgg mbàkke ku la yaakaar te bu jaaree fan xemmem la lu may ñu xemmem sëñ Mor Mbaaxe barke Seexal ak liif du jàng du juddu du daraja du lenn ci àdduna sëñ Ba maama def ni ma mel te ñaq ba ko may asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëriñ Fallou yàlla na nga fi yàgg te ànd ak wér ci barke sëñ Mor Mbaaxe li nga yéenee liggéeyal sëriñ Touba li yéene koo liggéeyal sëñ Mor Mbaaxe yàlla na ko sama borom kàttan nga ànd koog njaboot gi ak dong ci barke sëriñ Touba. amana rasulu bima unsila min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa halana itan kama amaltu ala sin min qablina rabbana wala tuhammilna ma taqna bi wafana waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna al qawmil kafirin salli salatan ta'amil wa sallim salaman ala mu'min sitanu bil haqq wa tanfarij bil qurba wa tanal bi raqaiba wa ala alihi wa sabi fi kulli man dunatin bi kulli man sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wa salamun ala mursalin alhamdulillah